nañ ko Papa Boy Djiné benn soxna moo koy arbitré journée attention arbitre dañ waaja arbitre sifflé na si arbitre soxna si sifflé Papa Boy Papa Boy Djiné na léegi sànni na léegi moom it Papa Yada ngi tek dañuy tase xeex na dóorante na ak moom oh fayu na Papa Boy ngi ne tek Papa Yada ngi ne tek jàppante nañu dóor na sànq moom Papa Boy Djiné waaw waaw ñu ngi ne diip Papa Boy attention Papa Yade Papa Boy Djiné ñu ngi lew tawaat jàppante nañ seen ñaari seen ah mu ngi doon ñëw moom Papa Boy Djiné jàppa oh Papa Yade saf na Papa Boy Djiné Papa Yade ñu ngi attention Kaaw jël na tànk li daan na ko daan na ko daan na Papa Yade daan na jël bu Papa Yada daan na ko jël bu rëy Papa Yada daan na ko jël bu rëy da ko oh, daan na ko mbot